ñuy wéy ci waxtaan bi am nañ gan yu am solo ci kër gi comme niñ leen ko waxee sànq wala ñu dem ci euh, break bi euh, ñi nga xamante ne ñu fi am fii tey mooy members yi nga xamante ne jógee ci Vision Development Foundation xam ngeen ne Mamadou Tro Dabo ak foundation bi nga xamante daf ko taxawal ci réew mi yàgg def lu am solo jëmee ko ci askan bi euh, ñëpp gis taxawaay bu ñu am ci weeri koor bi nga xamante ne boobu lañ génn ci yàggul waaye tamit ñu yàgg koo def ci réew mi waaye emul ci weeri koor bi am na yeneen fànna yi nga xamante ne dañ ko dee taxawee jëmee ko ci askan bi dimbale surtout néew ji doole ji ci biir réew mi waaye tamit dimbale ñu bari bari ci réew mi loolu xam naa ne ñoom danañ ci gën a ñëwaat yu xuus ci waxtaan bi euh, ci kanam léegi léegi wala incha allah bu ñu leen dalalee ba pare ci waxtaan bi euh, am nañ fi Mr Kabiro Dabo mu nekk head of admin Eh, ci Vision Development Foundation waaye am nañ tamit ki nga xamante ne moom Mr Fofana yore kaddu foundation bi moom mooy the eh, public relations officer te ngeen xàmmee ko bu baax a baax surtout ci distribution yi bu am lu bari moom mooy gën a fësal kaddu ci li nga xamante ne moom mooy ci eh, programme si su ko defee xam naa ne moom lay tàmbali rek mu nuyoo and then su ko defee nag ñu xuus ci waxtaan bi Mr Fofana thank you very much ci time bi nga jël pour ñëw waxtaan ak ñun. Eh, ci taxawaay Vision Development Foundation ci njiitali Mamadou Tro Dabo waaye foos ñu bàyyi la nga nuyoo Gambien si eh, ci ñu lay seetaan ci biir réew mi ak ci diaspora bi ñu ngi lay nuyu baax di la dalal ci programme Okay, thank you very much. Uh, thank you very much, Kante. Thank you. Uh, it is our pleasure yeah. to come and uh, witness your Africa Good Morning Africa show on behalf of our CEO, Mr. Mamadou Trodabo. Mm -hmm. It is our pleasure, of course, to come mm -hmm. and uh, share our you know, idea or Indeed. our thought yeah. about the subject matter. Mm -hmm. But again, we wish to take this opportunity to thank all Gambians yeah. for the support that we have been getting from them since the inception of this foundation. Mm -hmm. And uh, we wish to pray for Allah to bless the Gambia and bless Gambians. Amen. I thank you. All right. Thank you so much, Mr. Piaro, for that uh, brief introduction. and. Um, next we will have Mr. Kabiro, head of admin. Uh, Mr. Kabiro, ñu la yow tamit and welcome la ci programme bi. ñu uh, bàyyi you yow tamit nga nuyu ak Gambien si ñu lay seetaan yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. yeah. Mike uh, Towards in, uh, Ramadan uh, programs here, mm. you've always been consistent. Yeah. Then you know Japale, see si see distribution, see like, uh, Uh, i all the activities. Uh, thank you very much uh, today nag dañ fi ñëw rek comme invitation la pour ñu waxtaan si suñ jaar-jaar yi as Vision Development Foundation mm-hmm. suñ effort suñ def through the Ramadan mm-hmm. ak ak yeneen activités yu ñooy def te Gambien yu bari yëguñ ko ak help si ak yooyu so mm-hmm. yooyu lañ fi ñëwal hopefully we'll have a good discussion fantastic loolu loolu am na solo bu baax euh, comme ni nga ko waxee incha allah kon dinañ dugg ci waxtaan bi euh, ci li tax ngeen ñëw am naa dinaa bàyyi Mr Piaro mu tàmbali waxtaan bi waaw. Mhm. pour ñu def ko. in Mandinka wolof. waaw non waaw ñu gën a bénéficie vision développement. Mhm. ñoom tam ñu dégg xam taxawaay vision bi because it's very important te olof yi den ne mhm. lu yàgg rek dëgg la te lii dafa yàgga mhm. kenn man ay kanan mënuma mban arana fomo moom misirmol mhm. ka bata yaaji sa jol da ka koleya dol bu ka sotono dimbal be bulu ka bata so wuli wuli wuli nim fentile fan mi ye a kon ke naati ke sambadi laal to ke di mool la of course ñu operation o bi moo buka butu dundi je is charity and is a gift is free yaaj nka wo ke so a naataaje fanan ko e na baadin christianol ben fee janne bayri ñi mukkuleti mi ye ko a manke diina kuuti e hadamadiya kuwo lem so nin christianol fana ye suulol soto aka ke probléme o te bayriwol fana na programme o ka ke ñu ya comme décembre lem so a naataaje saayin nga fem ba kafu ɲɔgɔn ma nga christian community kumandi k'a di la so wo fana mu kule ti miya ko ngo y'a ta nga ken activity ti eh, december o december ni mari k'a follow up i k'a jɛl kon ka christianol fana kumandi nga fem ba ci kan k'a di la pour ni ta isa tala ila ngol tema yo nata bo woto nga je ko musu kafolu i ka bata yo ndung itol fana lo ndula min be bulani la ŋani wo lem ñinti ko jannin be fendi lela wate o waati nzima ko nga dula ke mi alo itel ci fen sotono je mm -hmm. so nata ko sai nga nak do ko e eh, ima ko yoto be ma ko lawto nyaadi ye constant sabal soto fofula folo folo wolem ka keno soto so nke ma ko dolu ma ko pour ka lansan ka dila okay. yo inata itandi fanan ka je sansan fencing won problem ot so kana bula fanan ka je fencier inata itandi ko jiko ke problem biko itol fangol le ka kolongol sing siŋ bari koloŋol ñiŋ buka garanti so naataaji saayiŋ batuŋo boholol siŋ so kamala na siyo momadu turo daabo a naata na masiŋol saŋ na miŋ ye a loŋ ka boholol siŋ yaaji so tumole tumoo le naata naa taa a siyata musi kafu wuli wulol ti le miŋ ye a loŋ ko bankoo wolin to la operation o niŋ saayiŋ teema wolu bee registata la wolu mu meŋ bala kono yo wol dum fana nka boholoo ñiŋ siŋe ye niŋ a hand over nka di musol le la muskafol ñing o nga di satewol yaaj nka wo kele so naraje fanan ko karaŋo la fanna la mool mil buloo mee koobeŋ ila dinniwol ka bataa ku jamal le soto loolu bi jee boka karaŋ no loolu niŋ taata university problème niŋ taata college problème so naata naa scholarship package fana launch so scholarship package fana boot le ka screening ke ni application o kii na naanaata ye screen mil ye a le qualified nka wolu le select of course moote mo be satisfy no yeah, bari dol ko fole absolutely ah, ma ko do master don kan mm-hmm. yene ko board la recommendation katani wala alpha kafo mm-hmm. ni wole min recommend ron ka wole bari bayla do ko si sono ya ase tiling ani -hmm. anin ase mo be ma ko no mm-hmm. so ka wo fana kele sa wo san ni mol ka jube san ko si fula ka kafol kumandi mol min ya lon ko e qualifyta ta ngela karambungol joy yo wo dum fana ko mi nga fo nyame ñi board le ka select you know, connection to your family tie to your whatsoever, But the recommendation min syndrome and the ko nying is fitting ka wala taman. Okay. Yo, so nata nata raje fana, mm -hmm. ate fama fana nata aitandi bari dina banko lem, mo jamaa bi je milia lon ko ka kebaya misilme kendo ka lafi kata hijola ah. ibo tano. Mm-hmm. So anata na fana lunch aka hiji ticket ol dile sangol kono mi ala kasiya yaje yaani, mo jamaa bi je ke commande droit ticketol ci kaya. koye ko alta hijola yo ñin mukkuwol leti ko vision ñun dañ bugga yow lu baax looy def nii boo fi nekkutee sax hundred years muy continue exactly maybe sa doom yi ñu inherit ko o you NGO bi ñoom foofu na ñu continuer ko ba you know yow foo foo bëggoon mu éega mu éega fa wala mu ëpp mu mu fa mm-hmm. so you know basically noonu la ñëwee set up gannaaw affaire yi and uh, since then alhamdulillah uh, things are going fine mm-hmm. Uh, waaye ba tey he is the sole uh, you know main supporter financier of of of of the Vision Development Foundation activities yëpp Modou Touré Daba mooy mooy finance yëpp. Mm-hmm. Uh, te I think you guys have seen Ramadan bi lu passé. comme comme come look foofu na waxee. Mm-hmm. since day one of Ramadan bi last day eh, joxe lañu every day dañoo joxe ndogo. every day dañoo joxe ndogo. Mm-hmm. and laylatul xadri bi dañoo joxe ay ainak. Euh, other days yi dañoo joxe ay piece euh, one of those sa man loolu laa ñaw nii sol mooy mm-hmm. piece yi kon naa gis ne euh, you know try nañ try nañ try nañ lu bari ko waaye na ko waxee tamit mm-hmm. there are more other things mm-hmm. objectives yoo xam ne bëgg nañ koo lifin mooy ñuy encourage ñu bari di def lu ñoo def nii te alhamdulilah ñu bari ñu ngi koo def léegi you know in the beginning bari ñu woon ñuy joxe nii openly pour encourage others because ñeneen yi sooy joxee open dañ dee foog ne da wonewu mm-hmm. uh, waaye yàlla dafa am dafa santaane ñaar kuy joxe si open ak kuy joxe si ron waaw mm-hmm. uh, kuy joxe si open soo ko defee ne soo amee intention mais da ngaa dimbale ñit yi waaye danga nga bëgg a encourage tamit ñeneen ñi di ko def tiyaabo mu fa mm-hmm. kuy def si ron tamit am nga sa tiyaabo so alhamdulilah léegi Gambien ñu ngi gis every you know Eh, every corner of the country am na ñu dee open li joxe. absolutely which is good. waaw dafa mel ni ngeen inspired ñeneen. thank you we inspired a lot of a lot of people. ko lu mel nii parce que moon ñeen def koy wax mm-hmm. mu ne xëy nag am na li nga xam ne ko wax ne sooy saraxee mm-hmm. na ndeyjoor bi joxe càmmoñ bi koy waaye kuy joxe lu lu am ni millions loolu dañ koy fesal pour keneen tamit mun see gis mun a roy loolu te loolu dafa am solo euh, ci def bi balaa ma ñëwaat ci PRO bi mm-hmm. yàgg na. te olof Ndiaye def ne lu yàgg rek dégg la. Mr Touré Dabo comme ni nga ko waxee daanaka moom foundation bi kese moom moo ko nekk di def. ndax du ci dee am léego léegi ay jafe-jafe wala moom personnel sax. ban yëg-yëg la ci dee am. te mu jiite lu mel ni initiative ba mu gis sax ñeneen. di ko def di def lu mel noonu ci réew mi personnel boo leen di waxtaan ak moom moom ban mbégte la ci dee am pour dimbale Gambien surtout ñi nga xamante ne daanaka loxo jotul gannaaw. waaw main source which comme noo ko xalaatee man noonu laa ko doon xalaatee mm-hmm. na nga ko dee mën a defee all every year ah, léegi-léeg da ngaa toog ba last minute sax mu call ñoom foofu na mu ne foofu na foog nga ne this year lii dina mën a am ting saa ngi tàngate foofu na mu ne ko ala bet mm-hmm. ah, yàlla baax na ñu dem de dina mën a am ah, ba last minute mu ne waa di léegi léegi you know eh, toppatoo naa logic si yëpp dina ñëw waaye foog naa comme noo ko waxee lu la dee drive mm-hmm. pour nga ko gën a def waaw mu ne man bu ma jox ñu si dëkk bi around uh, waaw su ma toogee mm-hmm. ma gis kuy ñëw di jël mbuuru di jël sukur mm-hmm. di jël tàndarma di jël tiibaag di jël loolu ma ne kii bàyyi na kiraam ba fii mu ñëw jël some item lu nga xam ne hundred dalasi la mënuma ko understand waaye bu ma demee ba gis dëkk bi ba gis luy dox si dëkk bi ba gis. situation ma ne ma ne definitely. lii is is is is a serious matter. te definitely te foog naa loolu loolu mu ne moom loolu moo ko dee jox happiness inside. di gis mm-hmm. nit yu ñëw jël loolu. nga gis kanamaam ne yow pour yow. loolu is something that you buy ndox wit. sa bitik. Mm-hmm. wala sa cigarette. waaye pour kii mu ko mu ngi jël loolu di la si gërëm. Mm-hmm. di dem soo xam nga loolu foog naa moo ko dee jox drive bi daal moo ko dee motiver pour mu koy gën a def te again ñun taalibe lañ mhm. you go baax to the Quran yàlla mu ne booy joxe rek da kontaan mhm. waaye ñi am du ñu am fit pour joxe man suma maase su ma téye suma benn xonte dalasi may xalaat ne ah, su ma joxee lii lan laay téyewaat waaye boo joxee rek da kontaan waaw booy joxe rek da kontaan ah, so trop daabu na you know te all, all when man medical sector be more laa dee gonna participate in comme ñum de yobu, Sénégal ñum dee live in I try to look into people You know how ne need dañ am dire situations because every day people will come to you yeah loolu la bëggoon how often ngeen di am lu mel parce que situation bi ñëpp xam nañ comme noo ko but sometimes xëy demand demande bi dafay high so yéen tamit at the foundation mm. naa ngeen di mën a traiter loolu parce que comme ni ma sometimes am na ñuy mm. waxee sax mbir mi fayawut mm. surtout sooy select ñuy dem university wala ñu dem faju ji ak yooyu how do you deal such kind of situation foofu na will come into that more waaye ma briefly rek su ma fi toogee balaa ma paree dina am ñaar ñetti nit ñu may text about the condition you understand yeah. and uh, te foofu na nu ko waxee do sometimes yow sa xarit sax mm-hmm. sa mbokka sax dina la ne dina la ne da nga soxor mm-hmm. because mu am na condition gis na yéen a ngi dimbale keneen waaye lii ku koo def ngir yàlla la koo defee mm-hmm. so ñun suñ demee di si suñ mbokk yi ñun ñu ngi cheat the system which is dañ ko yàlla daf ñu ko lifin so man su ma comme su ay go ay travel ñu dañ maa wér ma kunku ba fu nekk ay jibooro you go you sit with them da nga seet condition kooku da nga seet background da nga seet su fekkee ne kii definitely is in a dire situation nit na ko mm-hmm. then you go back nga waxtaan a ñoom foofu nga ne hey foofu wala monsieur Dame kii I think deserves it whether manjaako la Mali la jógee yooyu da Conakry la jógee yooyu da Mauritanie as long as mu ngi si dëkk bi te laajte na ndimbal soxla situation am mi is dire mm-hmm. koku dinañ ko lifin so it's, very critical wow so see why ñu ngi gëna bu ko taxawal fofu will talk tell you about okay. that taxawal Dan yo dañu gëna look into waaw ñu nga xam ne daal des comfort assistance ak yooyu noonu all right fantastic mm-hmm. loolu am na solo Mr Fofana come back to you as the PRO tamit xam naa ne eh, yu bari yu jógee ci foundation bi ci yow lay jaar dem ci askan bi so danga mën a elaborate more on the issues yi ngeen di def eh, comme ni mu ko dama ko waxee léegi eh, handling the issues some of these things can be very challenging but naka ngeen koo mën a manage at that level waaye tamit comme ni ma ko waxee personally the CEO mom, how does he feel year in, year out? He still want to do more, wow. despite at some point it's challenging, but he's still eager and want to do more to support Gambians. Lolu bogana nga gam sey and demand Okay, thank you very much. Uh, no mo ko sey okay abaraka ba ke eh, kante hmm. yemi foten kumale miyalon ka kumayata yo komi aliye men don doku doku na meta toñale ɓe jeeyi yo bari e vision development foundation mr dabo mm-hmm. mole matimi yaalo alaya sole o oh, will go somewhere waaye lopitaan moom pour samp ko si dëkk bi loolu is been his idea for a very long time comme nu ma koy soo demee si këram medical equipment si bëri ngi taxaw gaada nañ dos yéen yaaxu nañ sax waaye loolu yëpp si intention boobu la woon eh, daf laan am professeur yu daan jógee Sénégal di ñëw Gambia def studies yu bëri comme na da nga koy yëg wala dafa am ku la <laughs> ya. suxlu daal ya. waaye loolu yëpp si idea boobu la definitely te yëfi dépense bi tamit finally mhm. eh, man bu ma ñëwee xam nga soo yàggee bitim réew léegi-léegi nga ñëw fii sa yi daf lay uti ak xalaat ah. yi ordinaire ah, yi léegi soo moodul sax dañ ah. ne kii ku soxor la because moom daf kunyore ku ñëw rek daf laa jox ku ñëw rek mu jox ne ko bro stop mu ne ko don't do this mu ne ko lii mu ne ma yokku ñi gars yi dañ maa ne ñu ne kii dafa soxor de lu bëgg ñu maye may na déedéet ne ko ay soo nañ nañ set up something lu nga xam ne kii du ñëwaat ëllëg ñaan la dina mën a continuer si la ma ñoom foofu na waxoon ne ñoom demoon nañ ba set up like thirty businesses here you know di dimbale ay lif eh, individuals yi waaye loolu daanaka daal eh, sustainability was a problem feeloon na daal so now we are revisiting that again waaw di dem di ku ñëw daal di ñaan dépense ñu jël sa detail si suñ la mënee may ñu may waaye dañoo jël sa detail dem ñëw de story la seet la na da yow mu neñ laa ubbil benn business support la ndax bul demaat ñaanaat keneen si ëllëg sax mën ngaa doo di fayal sa doom seen school fees mhm. from that business so loolu yëpp mu ngi si programme si and uh, i think lii leen doon xaar pour uh, you know ramadan bi wow. yep yi yëpp dem den ñu toog di waxtaan because uh, ndimbal baax na waaye ndimbal buy mujjee mm -hmm. ndimbal buy am jëriñ foog naa moo di most important bi naan te fu mu nekk nii loolu lañu ñu eh, Modou Touré daa bu wax sax ñu toog ñu xelaat si yooyu noonu going forward. Fantastic. Yes. waaw ah, bëgg nañ ko jàngal nu muy nappee waaw loolu ba bu leen gisul dem dem mun a nappil boppam mun a am jinaam bu baax loolu tam am na solo bu baax su ko defee ñu bàyyi la Mr Fofana si kàllaama soose nga sommarage loolu li moon ñan la ci ak ni ko Mr Dabo élaboré loolu am na solo bu baax den su ko defee nag ñu euh, raanop waxtaan bi te time bi daanaka euh, thank you very much Kante mhm. euh, ngamira Mr Ñange min fotaya kuma ah. yaatale mhm. yo bari i kabiro yaa fo ñaame ah. e toñalem mhm. mista daabo ŋaniyo tartalale mhm. pour kaaje ko jan jata kende a bunda si sotono mhm. mi ya lon ko toña toña aɓe ñin bantala banko jararo aba talala toña toña ate stop lano bari mhm. a sa talano bari ne aja ka ñin dépense baal dundi pour ka moolu eh, samba sénégal dol bi ja katale fo olmost e million plus yo bari abaka juuɓe ko ñin manque na familité a ke makoye yo wo bi jele bari leptano atemu mi ye lon ko ala kul man easy you know, a dépense o warata le a nafta ku jamal le ba kono yo bari wo ngani wo batale le bari ndio ñiŋ profit ni ti je kabiro ye a fo ñaameŋ dépense dépense meŋ ka ke ndio kono moodu faŋo le ka a la kodoo bondi ka kije na siyo e ni mhm. yo wo bee ye tandi ko a ye a je le ko balafaalem ani toña toña gambi a ye wo le je bari niŋ na operations faŋo juubee ntel politics mool ka fo ñele ko atol be pati kar atol be pati kaari mm. bara den of video mo kilin le ka fo ñoko to ya to nya atol man tara pati to because yeah. nga jele ko ali eh, eh, NPP la député wol so sukuro la mm -hmm. mo be o je telotol ah. ni nga di UDP la député ol is fair enough Absolutely. ni nga di Mama Kande la député is fair enough mm -hmm. sorry for mentioning the name yeah, ni nga di GDC la o GPDP or any other party mm-hmm. wo is fair enough ntol kam min jije doron Gambia, Gambia. ntol mi don't belong to any political party nka agenda la support don government la agenda mi ya lon ko ngaje ko to nya to nya banku eh, yirwando le national development goal wala be ata gringe wo mun to la lon kan dangol because ntol kam min to complement the efforts of government ko fo mo len ko ntol we are an ngo we are not government andu man tara jam fanan ko min ning government be symbolity na yo hani itol man futano dame o man ko mil ntol kana wolle keye i be la ko ila jiol man futanoo daamin si futandi je yo wole mun to la lonkandaŋote yo bari ŋeni sifa min be na siyo e la mamadou daabo is very interesting bari wo nte ŋa wo loŋ ne niŋ moo ta ye a loŋ nte fana ye a loŋ ne because how many mbe doo kuwo la moo du namunaaje moo ye naa a ka ye ko mbe meŋ domo la maa soto ye muru ye taa no empty handed wo namunaŋ soto fa wo namunaŋ ke niŋ ye naata je tooñaa tooñaa i be miŋ domo la i wo le soto hani modu be sino la niya kuni nara ta si fenci ka ko ya ni la dimbali ado wo is natural wo is nature in him wo te kilinte ngo witness le wo over ne mun wo faaji but comme kabiro e mem fo wo is very important and worth noting mm -hmm. because mote ni mo be satisfy la no yo science part of strategies nga milki je mm -hmm. sustainability la component comme gambela la nature be nyame yeah. television dia mo la man dia mm -hmm nga programme do soto nun jang before ñing e eh, bagwe programme be start la mm -hmm. that is how we can help the youth mm -hmm. we bring it as a microfinancing program nga youth sol kumandi from 400 300 200 to 100000 wo nga wo launch le fan in grts mo be ya witness le fan anybody min lafta verify you can call me nga kodol ci kan ke di funding ke wala Before can realized what happened, three quarter of those people they went back with. <laughs> yeah. And bitikol bi bitikol bi jamfang bitikol milia lonko ne tara jube. Well, they're doing fine. Okay, well, hair salon no yele. Do boy do bijo boy restaurant no He's trying. Yeah, indeed. Yeah. Well, not ajeko that money you don't want to use it to go. Yeah. You know, ngawo initiative shotole. You but bari mbewol be try can revitalize because mm-hmm. kule mia lonko ngakele mm-hmm. for a start. Yeah. yo bari naata woji je ɓaari koɗo ñing to yanto hen maye donto ñiye maakoyele ɓaari ngo work le yo ngo work is not business nka juɓele ko ninga ñinke i baagila ñin probléme o ɓe talala le yaaji so keke wole kamma baagila ko wo probléme o ñin si tala bari itol fana min ka ke comme gan business o fana na systéme o ka mane mm-hmm. yo it's a 200000 ta ya invest at the end of the day ne aje ko is not sustaining they become fearful yeah. So Dulka Woleje, like, let me just travel. So they travel with the money. Okay, but nobody is following them. Bari, uh, alhamdulillah, yeah. we're giving them as charity. Yeah, let them move from one level to the other. Mm-hmm. And niwo kenota dal wolem NGO la nganiot ani momo tro dabala nganiot. Fantastic. So umukuleti mi alam ka bije mbe review nyol ke kanne mm-hmm. pour ka haje ko eh, business ol be yele no la nyama and agriculture fana Mr. Mm-hmm. Dabo wo ametele ka wo ngani soto bari eh, Gambians la mindset towards those things mbe wo fana try kan ka study bari fo Gambian le fon yi tara pareri mm -hmm. pour ka je ko agricultural sector isinano ke bulo dundije ntol ne aje modu kabri nga before mm -hmm. aka mole subcontract uh, boholol sing bara ko ni this not sustainable atara masin fula saya nat tractor bi la ka boholol sing masin do fana bi ya ka boholol sing akonye with this moolu ni musukafol ni fo ninkewol miliyalon koy naakol soto ani ke faŋol maa koy mm-hmm. mse taariŋa boholoo si yaaj so wo yo problème o solve yeah. but again for government level intervene in this sector mm -hmm. because agriculture is a very difficult sector jama ika min complain fo ninkewol ni musukafolu nka ñiŋ naakol min dooku na feŋol ka tiñaale and at the same time feŋ jama bi je bee ka pare ñoola le mm -hmm. naa bee pare al bee ye samba marché oto albuka fen soto no je mi alon ko is good absolutely yaji so price nyin ka jile so itila bata mumo be ibuka na fen soto because wona ko musolu to tell you the truth about Gambian women ikawo men doku ikela mol feed wala ikela dimbal karambol jowol so ningo mene nyim faham doron ibaji la ko sign post harvest loss nyingi ba trial yi mako ay tala because ning cold stall sotota o dami alon ko musolu se fam mako no mm -hmm. wo naakowol faŋol to wo kool stosñol in container le ñanta ka taa jee i baagi la ko niŋ ye miŋ habes doroŋ ye ke jee then sisinal gap te soto la kote ke sisinñol be elapse la le because kanjol mili ye kati make taa consume noo la i baa naa fe la jee ye a maaboo je yeah. So we better rafuntila le domain domain, you know, in a data projected form, yeah. then more kara use price nimbe stabilized. Very good. Yeah. So ngil munga ni ultimi la vision development ya sotole already okay. because na CEO fon e garden sotole mille an garden jurumol le mi bija. Fantastic. Abe pareri wala le o mate fon otale. Mm -hmm. Pour ka ke fo ninke ol stage ke doku o ke fen sotoje. So saji do fana mukuleti mi lon ko nene nga mirale mm -hmm. anu ngan eh, du, duma doku ol ke Okay. misajul milka naaje ka dal ka kole an every year kalafal yaji so te ngani yo min soto wolem ñinti ko nga dula soto damiyalan ko gambia dingol le be tarra jeyi sa wo sang se 100000 rams naatino je nga malayandi ase dum marché o kono la ay price ñing try ka force to come down wo ngani yo balal yo bari ñim be mu gradual ting leti fonga uh, government la uh, you know will sotonoje yeah. and support support indeed then ibagela yeah. ko as easy no because every year science your kata no very good and on left lafta nga program or close that aspect within just we have about 5 minutes or less than that pour ka program or wrap just like partnership with government mm. yefanam benyadi le between VDF and the government relationship in terms of partnership Konya yafanyame. Mm. That's important. And, you know, apart from that, I think, uh, I only hope this will be one of a many. Mm. You know, I think Africa and VDF will collaborate hmm. more. Mm. Of course, we have we already collaborated, so we can to have more of this. Hmm. Because to speak to the people also, Fanang, is very, very important, important. For people better understand what are your plans, your hmm. programs, just not only Ramadan or Tabaski, but Albeku Jama, Jama, and that's important. So relationship with government and um, Hmm. Apart from that, Ebe, what other thing would you have to conclude with? Yeah, I think uh, actually we have a very good relationship with government. Great. Because already we are a recognized NGO. Yeah. Yo, but coming ka minfo, mm-hmm. uh, after relationships if I mean uh, with government, mm -hmm. especially with Minister of Youth and Sport, ah. Agriculture, mm -hmm. and Education. Yeah. we can sign an MOUs with them. Okay. So that ebagila some of our activities mm -hmm. they can come in. Yeah and there are some of the programs, they're doing them in the provinces. Mm. We are already an NGO, needs to collaborate knowledge. Our organizations can be used, yeah. will try not to implement it for them. Because until in our uh, uh, service delivery, until we don't have discrimination. We are very neutral. Mm -hmm. Everybody knows about that. So we funding we propose to the government for mm-hmm. na activities is in support now, mm-hmm. Because ne we eh, nyin sukuro ni mano min katala. mista dabo itolle kañi import tan ɗo fongo sotata nan kulugo yewole odana pour ka que ana fe nanje yaaji so wol be mo kuleti mi alan government se support ke keno wol tole anin manola karola den i la ko ni won naata bari a kana ngo job le la den i bagila ka si easy mm-hmm. although most of them ni naata ne juti wiva samba to ngo affairs ike le ka a wave mile yalon koye bina ngo But NIS a, a better stand shotono than that. Okay. We will also love that. Very then ibagela ko because vision development wo manke kukutati nyimbankunka. Mm -hmm. Kabo government anywhere sector sector mo be alone. Yeah. So wo mbe lafila wala. Mm In a nutshell fana mbenyi itandila the mume wo be la ko ah. vision ah. development mo kafoleti me alon ka Abidjan mm -hmm. pour ka molle mako emilale bulol me kobe. Mm Yo na call nying tonya tonya ay dividends dile eh, for the past twenty something years. Yeah. 20 or 20 uh, above 20 years mm. nga mol -hmm. kumandile wotu mon to lemu ngo ti force ngo mi alon ka kanyin this type of a service ke mm -hmm. so no call ni ngo jama nata funti sayin anin kafolu yeah. alhamdulillah bi wol fonan they are complimenting the effort we have been doing and they are complimenting government's effort mm -hmm. so nga wo nga appreciate so much but again we are appealing to other governments and uh, parastatals mm -hmm. and uh, government uh, individual and philanthropics mm -hmm. many alon ko they are watching us to come to the country to help. Because near Jubin, uh, eh, one third of the problem be all try can to yeah, fix. Definitely. There are other areas mila alam problem all bije. Yeah, be mol kuman le yena nga karambungol lo nga dlalo nga foninkol makoy. because Gambia pour ka a so ñil mu kuwol leti mbiɗa mbi appil la mo be ye nanan ino ni mala ka ke ñamintol collaborate nga national development endeavours reinforce thank you very much Mr Kabirou mu ñu baal yow nga tëj ci seen kaddu gi rek seen lekkaloo ak nguur gi hmm. euh, comme Mr Fofana ni nga ko waxee hmm. loolu dafay doon lu am solo hmm. ngeen gën koo dëgëral waaye tamit euh, ci li nga mm. xamante ne bi yi ngay tëjee surtout bi ngeen taxaw ak léegi mm. euh, liggéey bi ngeen def xam naa ne mm. surtout ren am ngeen ci mbégte foog naa bu baax a baax waaw waaw euh, comme noo ko waxee rek euh, VDF ak nguur gi nguur nguuri Yaya Jammeh nguuri Barrow they've always been you know working very well closely together demoon naa benn time maa foofu na si NGOs affairs in Banjul the lady bu fa nekkoon I forgot her name foofu na the lady Lady bu fa uh, the head of the NGOs affairs in Banjul. Wow. She she received us very well. Okay. She was very glad that we were there, and uh, she was very happy uh, about our activities ak yooyu noonu. waaw am not sure. The man lu ma ko to help us more mooy comme ni ko foofu eh, you, waxee yu xam sidara, you make it easy for us. Yeah we no we not begging you for anything waaye si luñ nekka facilitate bul bul bul toog nguur warta toog because ko citizen yi di oo loolu liggéey nguur déedéet nguur bu baax nguur bu correct su gisee yow ngay def lii dafa laa ñëw xeetal yi waaw mu ñëw dooleel la dafa laa ñëw dooleel dafa ne kii lu moo def nii kii suma liggéey la moo def di man maa war a def lii man maa war a dundal suma citizen si man maa war a faj suma citizen bi waaye moom mu ngi koo def kon xaaral ma puus ko waaye fii instead gars yi dañ laa xaar pour nga dem ci ñoom. te ñu bari amuñ time boobu noonu. man always dam lay wax loolu Fofana ak Modou Touré Daba may leen lu ñoo def nii nañ dem appeal to the to this ministry. to the health ministry or to lii pour lii mu ne ma ñu ne non non loolu dafa waste time ñoom gis ne lu ñoo def. ñu we are all over the media. ak yii nii they could have just come in. mu easy. waaye they not doing it. so lu ñoo appeal si government bi if they are listening. Mm-hmm. do not wait for citizens to come to you. They're already paying you enough. Yeah. They're giving you all these facilities. I'm going to mean. Yeah. No minister is better than you. Absolutely. No minister. Yeah. No permanent secretary. Yeah. facilities yu ne laa have mu ne la koo jox waaye dañ leen koo jox bi ko dafa am liggéey yu ñu leen santaane pour mu easy ak gaay so you say young guy, i am constraints mm-hmm. let them come to your aid let them talk to you Absolutely. my friend lala, laa mën a def pour yow ma sa liggéey boo sa yoon booy jagar nii mu gaa gaaw lii ak lii ñu kool fat mu ñëw. mu ko that's how it goes. so suñ as a nation. and these are issues yi ñu wax and we will keep talking. exactly am because jafe-jafe li nga wax am na te issues like this xew. te buñ ko tamit. du du du pour ñu ko du yomb. exactly thank you very much. pour nga indi point yu mel basically just to close mooy ne lu ko foofu na we we happy nag we in lot of NGOs now going around giving things. we very happy eh, ne ñun will always be seen as the leaders. Inshallah. Because man, come to man, I joined them about five, six years ago. I was not here. Yeah. While I've been following them yeah. for a very long time. Yeah. Uh, and I've appreciated Lunyo Def Yip. So my heart more best Munyuate Gambia, I will obviously join hands with them. Not because it's a family, but I will join hands because Lunjerin de Kabila. Munumako. man suma rombé kuy sonal wala def eh, ko dimbalé waye suma défé ni def ni mu ngi empty mu ngi empty mané ah yalla waye yalla dina ma fay suma ene yana sa waye ku ko mun so muni and ak koku wa dimbalé ko nga dimbalé ñu bay waye lu ñu wax rek moy nguur gi tamit nañ control briefcase NGO si bari ñu ngi ci dëkk bi loolu dafa distop NGO yu def liggéey comme yow amat ba num ko waxee suma ministre bi suma xarit mu ne join the list bari oh, nañ oh. <laughs> join the list yi suñ baree yéen la ñoo distop yéen journalist yi hmm. so join the list su bëree journalist la ñoo disturb so brief case NGOs tamit suñ bëree mm-hmm. di dem di lefi nii rek nataal leneen yónnee di di real NG real NGOs la ñoo real NGOs la ñoo disturb so government mi dañu war a uh, thank you business si kaw askan bi thank you very much loolu dafaa dis dafaa disturb di real NGOs so to make our work easy nañ control NGOs yi nañ leen control de VDF from from Bakau ba Koyna. Mhm. amuñ fu ñu defut borehole amuñ fu ñu defut medical assistant amuñ fu ñu defut dara. yooyu yëpp a ngi fa as evidence. so anybody who wants to do the same thing you are welcome to do. but do not take uh, Gambians for granted. do not use Gambians. pour nga fill sa pocket. is is te ñu bari ñu ngi ko def si dëkk bi. ñu ko def it's very unfortunate. it's very unfortunate. am na yéen taxawaay bi ngeen am ñeneen am leneen. loolu loolu exactly so so let's let's let's all. du gudd fan. <laughs> baakaar la et let's discourage. te di len sante tamit yéen ay Africa even do ñun suñ eh, eh, CEO Tudo Dabo. yëfi media moom du ci des sawar. man buma ma mako forcer ko forcé. ko yoolooy def ni dafa wara feñ feeñ. please su feeñutee. Mm-hmm. su feeñutee ya ngee def disservice to Gambians. bu ko dañ la wara gis. ba tey ba tey du dee bëgg a gis ko. du dee <laughs> du dee activiste man maa dee call GRTS maa dee call ay Lamine buma ma jos ñëwee. Mm-hmm. man five years ago laa fi géej. I used to come I used here. benn néeg rek la woon fii. very néeg rek la woon. ma ne ko maa Lamin yaa Lamin da ngeen war a liggéey yaa yaa li fi mu ne ma non man yëfi TV yëfi. ma ne ko waaye loolu has to happen. pour nga encourage others. pour ñu Gambien xam lu ñoo def. so time bi doyut waaye dinañu gën a ñëw ñuy waxtaan. welcome welcome to talk moom ah, euh, a accès ah, ak a a uh, euh, mu nekk head of admin mm. euh, VDF mooy Vision Development Foundation ci jiitale Mamadou Tro Dabo ak ki nga xamante ne mooy Mr Sekou Fofana nekk di public relations officer moom moo yore foundation bi ñu ñëwoon fii tey pour waxtaan ak Gambien si ci la ñu yàgg taxawee dimbale askan bi ci réew mi ci anam yu bëree bëri dégg ngeen lañ ñu wax ci waxtaan bi te am nañ yeneen yéene waaye waxtaan bi du fi yem kon ñu ko waxee yàgg nañu liggéey ay Afrique waaye xam naa dinañ gën a liggéey pour ñu am jotaay yu mel nii gën koo yaatal a yaa yaa ngay jàkkaarloo ak nit yi bëri. but I never see them change. kii laa njëkk a xam. but lu ma ko xamoon démb loolu laa ko xamee tey. waaw ah, definitely daabo di same thing moo di amee liste bi si yooyu. but facing different people. waaw but ñu mm-hmm. ngi kaam. macha allah man loolu dafa ma dee ne si nit. demee wuloo fa livin. waaw mënoon nañ ko doxee. parce que waaw waaw waaye definitely study naa loolu si ñoom. every year dama fa dee dem lu gën a bëri su ma demul bëriwul lu ma dee ñàkk a dem. waaye fees yi ma leen di gisee bu daaw bi boobu laa leen di gisee. am na solo jërëjëf ñu ngee dawal. loolu yërmande si nit ñi te doxewuñ ko waxewuñ ko bii ëfuñ ko tam. waaw waaw. su lu mu wax nii. Mhm. soo gisee loolu du am man damay teel a mer. su dee soo suy bat rek ñu faree joo laa leen ji laa leen daxaa joo bi yëpp. <laughs> waaye waaye waaye waaye waaye waaye leadership. important leadership dafa count. leadership is very important. yow koo fekk mu koo def sa leader. soo gisee moom nu moo demee. noonu ngay demee. jërëjëf comme comportement ni turu comme nu ko foofu na xëy man million ñëpp suñu taxawee sax di seen. waaw man de force de ñu gis ko. he is even happy to be more to be more people. bu ñu ko fekkee këram dañ surprise mm. ma ko déet waay. waaw la dafa oyof de. soo leadership bi la rek soo leadership nu mel. am naa ne suñu baas yi am naa Lamin est-ce du moom la ko saa yi ñoo ne boo ci Eye Africa fekk yaa ngi toog ak Lamine rakam la sax Lamine sa rakam la famille la jërëjëf euh, kii mu